بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد أمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين mbokki جلدي yi mbokki taalibe yi ñëwati nañ ci liggéeyab Sëriñ الله xaadalahu allahu maxtaara mi nga xamee ni xaadimul xadim sëriñ alhaaji mbàkke moo ko doon jéem a dajale yal na ko boroomam nangu ci barkem faw xaadalahu law maxtaara lahu muy garabuk tuuba ñëwoon nañ ci xaaj bu njëkk ba ba ci ñeenteel ba bii nag mooy xaaju juróomeel ba yal na ko sëriñ tuuba nangu dafa door ni audu billahi min alcheytaani rajim wa inni uhiduha bika wa duriyataha min alcheytaani rajim رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تقود بها للشيخ الخديم القائل زلالي إلى جنات باخ توسعت wa kulli wa mali saana haamin mushassisu maxtarta waradita lahu fi lhaali walmaali awnaka ya muin wa bika nastain Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo nee na dama jug wuti saa borom wa taala bi ma ko jigee mu ni ma bul agsi foo jëm ma ni ko ci yow mu ni ma bul agsi ma ni ko mënumaa ñàkk agsi mu ni ma bul agsi ma ni ko mënumaa ñàkk agsi mu ni ma amal giin ma taxaw jaaxle lool mu ni ma ku bëgg aksi agsi ci man da ngay jaare ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa toogal diglu ndigal seydina jibril alayhi salaam mu ñëw ni ma sa boroom nee na moo waxoon yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi wa ma allamnaahu shi'ra wa ma yanbaxi la ak wala taqutu bi yaminik li mu waroon a xam ak li mu waroon a bind jox na la ko ma ni ko boo demee nee ko na ma mayaale làmmiñu arab damay xajam te moom muy arab te jëmm ku koy tagg da koy tagg ca la mu nàmp sayduna jibril alayhi salaam mu dem dikk ànd ay jëmm an naxaw al arud al bayaan kenn ku nekk jébbal ma boppam ni ma maay diw moo tax sahir si mana waaye baatin bi yonente be sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa nekk su ma ko waree bind day mel ni dañu ko sàttaar teg fa ma dikk ñuulal ko siiw na nettali bi am na tuuti wuute ak beneen bu ma andi woon mel na ni làmmiñ yi mooy wuute waaye nettali bi benn la walaw alam annahu wal arawdu wal bayaanu lii sullibat wali biha ayaanu ñu ñëwee ci njàngalem Serigne Touba ci ñaareel bi Serigne Touba xaadalahoo law maxtaar loo nee na nekk di liggéeyal yonte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa ba mujj mu ni ma gërëm naa la summi mbubbum njiit laayam jox ma mbubbum njiit laay ku nekk xam na ni saf na ci boroom ma defar ko ba mu baax ma yëkkati ko jox ko ni ko def naa ko hadiya nekkaat ci sama liggéey di ko tagg di ko tagg ba mujj mu wooma ni ma xam naa li ma la joxoon daa tuuti fob yéreem yépp jox ma ni ma gërëm naa la ma fob lépp joxaat ko ko hadiya nekk ca la ma nekkoon ba mujj mu ni ma may naa la adduna te féeteeg àllaaxira ku jaare ci yow kenn du ko laaj ma defaat ko addiya nekk ca la ma nekkoon ba am mu ni ma may naa la adduna ak àllaaxira ma joxaat ko lépp ndax boo jëmee ci yàlla subhanahu wa loo bëgg lu dul yàlla subhanahu wa taala doo àgg mu mujj dikk ci saa boroom ni ko kii jaaxal na ma saa boroom ni ko yóot teg ca ko kursi yu jàll wa anna ila rabbikal muntaha bi ma dikkee ba ak ci saa boroom di ma wom matal boppam yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa ni suñ boroom kii nga ma boole woon gërëm naa ko ma ni ko maa la gën a gërëm yow mi tax ma aksi fii siiw na waxin wi am na ay soppi tuuti waaye sëriñ bi lii da ko daan nettali lu bari li mu bëgg a leeral mooy daa awee ci yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa wasallama bi mu àggee ci boroomam kenn doxaltul diggam ak boroomam lastu ashuk abadan fi kawni jaral badi'a ajaban lil kawni ba tey xoolal dallani allahu ala llahi bila tagarrurin wa umri taqabbala am na ko sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar masa yewwi yabal ko ci nijaayam nijaaja wax ko ay baat xëy na baat yu naqari la bëgg a wax mu ñëw wax ko sëriñ bi xaada lahu law maxtaar lahu sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu ni ko moo ko wax mu ni ko waaw bi ni buur bu bëggee defu yoon baadoo la ni ko doo ko fi def xam nga nu buur di def baadoola buur day rey baadoola suul ko fa mu bëgg a def yoon wa jaaree yoon wa ca kawam daldi ni ko dellul ba mu delloo nijaaja ja faatu mu féetewoo lépp siiw na wala wér na sëriñ bi léppam ci yàlla lay bàyyi ko lu mu wax yàlla moo ko wax subhanahu wa taala ku nanguwul ay waxam daa nanguwul waxi yàlla subhanahu wa moo tax képp ku koy wax kàddu yu mën a naqari doomu aadama la koy dal ci yàlla lay bàyyi ko subhanahu wa taala du bàyyi ko ci moom birazuman barazani birazuman yubarisul muntaqimal barizaman wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo bi muy nekk ci géej gi kaamilub sëriñ leen Silla radiallahu taala anhu la ëppoon lu mu daan jànge wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo am na siif kati alal yoo xam ni ba mu leen gisee dani bu dara dox sama digg ñoom mu di leen xool ñu di ko xool ba mujj ñu ni ko ñaanal ñu siiw na lii gànnaar la wallahu alam am na ku mas a gis xaalis bu bari bi ni ko sëriñ bi di bàyyee ci suuf mu ni ko boo ko soxlawul tee nga ma koo jox sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo ni ko laaluma ko woon daa gën a yomba layal ci nangam laa ci jël siiw na sëriñ Tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo mas naa jox sëriñ Suhaybu radiallahu taala anhu kaasub kafe mu tëru ko lépp naan ko sëriñ Tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo ni ko kafe deesu ko tëru dees koy dongamtal siiw na sëriñ Tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo mas naa laaj ku ñuy wax sëriñ Muhammadu Lamin Njaay radiallahu taala anhu xam nga lu dig wayte mu ni ko mooy lépp loo nekk sax ci dàq kenn bañ la ca mën a jële sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar loo ni ko loolu dëgër bopp la wayte mooy loo nekk ci lu baax boo gisee lu ko gën nga dem ca bàyyi la nga nekkoon siw na daa mel ni li mu bëgg a wax mooy taxoo la gën yal nanu yàlla saxal bis bu set ci la gën ci barkeb Sëriñ Tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahu wallahu aalam am na kaamil boo xam ni askanu maam Balla Aïcha radiallahu taala anu ñoo ko daan donnante benn xaaj bi maam Abdul Xaadir moo ko bind ba ca des maam Mor Anta Sali radiallahu taala anu am ko yoroon ba bàyyi ñu jox ko Sëriñ Tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahu ginnaaw ba ñu ni ko am na keneen ku la mag ku ñu ko war a jox Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo wool lu fukk ak ñaar ñu man alxuraan lool Sëriñ Fallu doomam ca la bokkoon radiallahu taala anhu ni bëgg ngeen royal ma kaamil bii ku nekk dem bind benn ba ko indee ba teg ko Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law dikk jël kaamil Sëriñ Fadlu radiallahu taala la ma saa boroom digal ma taxoog moom adduna ak alaxira daa di xarmal sëriñ Fallu li ko boroomam wax ci kaamil bi sant ko bind ay xaraf yu jëm ci moom sëriñ Fallu ni ko sama naqar wa ma amoon ca kaamil ba ma bindoon te jotoo ca mi ngi door a jeex tey sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawoo ni tuub ko ab julli du denc aw naqar ci xolam ginnaaw loolu sëriñ Fadilu radiallahu taala anhu daa di bind bataaxel bu jëm ci sëriñ bi di ko sant bi ko sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo xoolee ni ko bataaxal bi rafet na lool maanaam yi rafet na lool arab yi rafet na lool xanaa samaam sëriñ bu soobe ngay roy mbind mi lépp da ko nuru mu ni ko ba ma la xamee ba tey bëggumaa xam kenn sëriñ Faadilu radiallahu taala anu nee na bi muy génn mi ngi dégg sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar loo mu naan bismillah ku mas a gis lii jamono sàngam ba jamono sàngam mun naa denc na naqar des na denc aw naqar wu yàgge nii siiw na yal na nu yàlla dimbali ci sopp sëriñ bi te topp ay ndigalam te sori ay tereem wallahu alam kaamil bii mooy bu siiw bii nuy jànge sëriñ Tuubaa xaada lahoo maxtaara lahoo mas naa hubbi am ñuy dikk mu ni leen dëpp leen dëpp leen Sëriñ Bay Jaxate radiallahu taala anhu aksi Sëriñ Tuubaa xaada loo laaw maxtaar ni ko dëppal mu ni ko fu ma jëm yow lañu doon seet ba nu la gisee amutunu fu nu jëm sëriñ bi ni ko ana mu ni ko ña dem waaye xamuñu fu ñu jëm sëriñ bi ni ko dawal dabi leen ñu ñëw siiw na lii daw na yaram lool waxiin wi moo yërëmtalu ci sëriñ bi yal na nu yàlla jimbale ci xam waxin ak xam jëfin ndax loolu moo di teggin sëriñ mbay radiallahu taala anu ràññee ko woon na lool ci mën a wax ak sëriñ bi wallahu alam sëriñ tuba xaadala wala maxtaar daana wax dëppal lu bari daana àgg ci xëppe suuf siiw na lu mel ni li koy waral moo di nit ñi dañu ko sopp lool ba mu gënal leen seen bopp waaye itam jinne yi noonu malaakay yi noonu yi salaam te waxtu wu nekk du bëgg kenn di loru léeg-léeg mu toll foo xam ni bu la waxul lool yi boo aksee faaw nga am lor ju gën a metti moo xam fasaasa lay doon wala ca kanam lu mel nii mel na ni bu nu seetloo nett lii jàll dana nu leer lool wallahu aalam ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuuba ci bu fukkeel bi ak ñaar Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la nee na boole nit ak nit mësta soppi sama hitte wér na xëy na daa bëgg a xamle ni jëfewul ci moom wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la nee na ba ma demagul ci géej gi boole nit mbooloo moo gën a yomb julli ñaari rakka wér na Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la tubaab bi yilif tubaab yépp te benn yilifu ko mën nañu ko woo ci benn góox góox mooy naan ci gimiñ mën nañu ko wax woo ci benn góox ci kafe gii booba da doon defar kafe ga ba balaa lekkati wala mu naan daa dikk laxasaayu fii di def li yéen ñii di def waaye duma ko def ndax fekk naa lislaam dàkku leen ba noppi wér na loolu dañuy xamal ni sëriñ bi lu mu bëgg mu am bu ko neexee jaare ko ci kafe walla leneen lu ko neex wallahu alam Serigne Touba xaada la wala maxtaar la nee na fa ma jële buur siin tànk ku baax mosu fa dëgg li ko waral daa yónni ku ñuy wax abdul xaadira haydara jox ko fas wu amul morom wu tudd jaxaaw ni ko neel sëriñ bi sama mbubb laa am ak fas woow ak siin jox naa ko ko lépp adduna ak alaxira keroog sëriñ tuba xaadalawo law maxtaar lawo nee na sëriñ ba tudd maba loolu la doon wut fa siin ba des fa waaye bu saa taxawee danaa ko teg ca kaw buur yépp wér na sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo nee na ku ma def may yàlla bu saa taxawee saa mooy yawmal xiyaam ma def la ni yàlla di def jaam bu mu gërëm ku ma def may yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa bu saa taxawee ma def la ni yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi di def sahaaba bu mu gërëm ku ma def may waliyu bu saa taxawee ma def la ni waliyu di def taalubeem bu baax wér na fa aynama tuwalloo fa famma wajhullah wallahu alam amna ku doon wax ak Serigne Touba xaada lahoo law maxtaar lahoo ni ko ginnaaw bu yàlla wéyee ak yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi wa salama sëriñ bi ni ko diglul ñooñu nga wax bu ñu wéyee duñu ma fa ba nga di mafa fekk wér na nettali bi andi woon naa ko waaye waxin yi ak ñi muy jóge mooy wuute wallahu alam sëriñ ahmadu kumba ture radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtara lahoo yàlla soxlaalu ko dara lu mu am baya boo jël man yow rek laa soxlaal li nga am rek ci laa bëgg Sëriñ tuba xaada wala maxtaar la ni tekk ab diir ni cey boo ko soxlaalu dara du la jariñ dara ndax ba mu la bindee la yebal fi barab kon nag barab boobee na la doy wér na lii andi woon naa ko daa am tuuti wuute ci waxin wi moo tax ma andiwaat ko mel na ni benn la ak ba ma andi woon ndax ki wax wax ji kenn la li dañuy fàttali man yuti an rasula faqad ataa allah wallahu aalam am na bis sëriñ mbay saar radiallahu taala anhu di wax sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu yàlla ba am naar bu laaj sëriñ bi lii lu mu doon sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu laaj ma mbar mbay radiallahu taala anhu ndox def ce suukar su bari bàyyi ko ba mu yàgg mu yëngal ko tànq ca jox naar ba mu naan ca lu bari Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaraloo ni ko loolu nga naan lu mu doon mu ni ko ndox la sëriñ bi ni ko ak lan mu ni ko ak suukar sëriñ bi ni ko mën nga leen a tàggale mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko tàggale ndox mi ak suukar si moo gën a yomb tàggale ma koo ku Babacar Sarr di wax wér na am na bis itam Serigne Babacar Sarr radiallahu taala anhu di ko wax yàlla am naar laaj ko Serigne Touba xaadalaho law maxtaar laho Serigne bi ni ko war na koo wax ndax lu mu am ci yàlla maa ko ko jox wér na am na bis Serigne Babacar Sarr radiallahu taala anhu di wax Serigne Touba xaadalaho law maxtaar laho yàlla Serigne bi ni loolu Babacar Sarr di wax fa ma nekkoon ca géej ga lañu ma ko njëkk a waxe dëkk boobee ba ma fay door a dem maa nga tumuranke ba mel ni néew bu ñu suul dëddu wàcc ko fa waaye jékki naa ba képp ku fay wax ak sa moroom bay giñ danga naan bu ma ko defee yal na may yàllay gabon ki xalak Sëriñ Mbàkke Juuf radiyallahu taala anu ni ko ak fudul gabon Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la moxtaarloo ni ko da ngay bëgg nag ñooma mu ni ko bu baax sëriñ bi ni ko du la wàññi dara wér na ñëw ci njàngaleem sëriñ tuuba ci ñaar fukk bi ak ñaar sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaaranahu nee na lu ngeen baax baax waa gaboŋ danañu leen jiitoo àjjana doonte bis la wala saa am na ku doon laa ci sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaaralahu lu dug taalibe lu yàgg serigne touba xaada la wala maxtaar la woon ni ko dañu koy def ci nit waaye neexu la wax nit ndax waccal sa boroom te jàpp ci man neexu la wax nit wér na sëriñ tuba xaada la wala maxtaar la woon nee na yàlla nee na su àjjana bindoo woon jeex dana leen ko yóbbul ci manding mooy ab àll moomee ngir gërëm leen dinaa leen ko yóbbul ci manning moomee ngir gërëm leen ba ñu may jaamu ngir àjjana duñu fa fekk dara wér na maam ngir gërëm leen yéen ñii jaamu ngir sama jëmm xëy na loolu la bëgg a wax li ma ci déggee moo di jaamu yi ak jaam ñi am nañu ay wuute sore nañu lool itam kii jaamu yàlla subhanahu wa taala ngir bëgg yàlla subhanahu wa taala ak màggal ko wuute naa ki koy jaamu ngir àjjana wallahu alam ñëwee ci njàngalem Serigne Touba ci ñaar fukk bi ak juróom sëriñ Touba xaada la wala mas naa am ñu woo di leen dama bëgg ngeen xam ni sama kër gi du peey daara la man mii duma buur ab sëriñ laa yéen itam du ngeen ay dak ay dong ngeen siiw na waxin yii foo ko déggee am na ku def lu mu wërta def wala mu wax ko yal na nu yàlla doole dimbale ci barke borom Tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo baat boobu mu wax te mooy baatu pee xëy na da ci jublu bërëb bu rafet bu ñuy caaxaane mel na ni noonu la taxawe fii wallahu aalam cheikh sidiya baaba radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo xam naa yonente yi alayhi alayhimu salaatu xam naa wali yi radiallahu taala anhum waaye ñooñ yàlla laay laaj ñooy ñan Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo ni ko dama ci sàtt bala ma la ko wax ñu ma la wax ni ñooma nga gëm ko mu nangu ko Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralawoo ni ko ñooy ñi jàng sama xasida yi siiw na ki doon ni mu waxe cheikh sidiya radiallahu taala anhu daa yabal ndaw maa ko andee nii mu gën a leer gën a gàtt te dara wàññikuwul ci waxi sëriñ bi wallahu ahkamu wa aalam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ci ñaar fukk bi ak juróom ñaar sëriñ tuuba xaada lahoo laahu lahoo nee na ñaar ñu sequk dëgg te di ko dundal bu ñu bokkoon genn kër ku ñuy yeewoo itam seenum gise du yomb ndax bu ko ne nekkee ca la mu nekk di ko doxal du gaaw siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaarlawoo nee yéen sama ñooñ warlu naa leen ak mucc waaye na ngeen ma ci dimbulee ñett bu leen def ngeen jot dem fa lu ngeen jot lekk ku leen bëgg a gis-gis na radiallahu taala anhu am na bis ca jolof muy jàng xasiid ak muqaddamatul xidma fekk booba mi ngi ci néeg bi sës ci néeg bi sëriñ tuuba nekk xaada laho law maxtaar laho muy jàng ba mu yàgg ay nelaw dikkal ko mu gént gis aw waliyu wu sol lu weex ay gaay wër ko mel ni lu koy sonal ci biir loolu sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho yee ko yee ko ni ko da ngay nelaw ndaxam moos bi ngay jàng ba tollu foofu noonu la ma noonu jigee woon sama boroom moo la ko doon wan sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu mas naa wax sëriñ mbàkki juuf radiallahu taala anhu demal seen néeg bee ba xam yaata ndaba fa nekk mu ñëw ni ko fukk ñaar sëriñ bi ni ko xaaj ko ci digg bi benn bi nga yit ko jigéen ña mu ñëw sëriñ bi ni ko na def mu ne ko fam naa juróom benn yóbbu ko ca kër jigéen ña sëriñ bi ni ko loolee boo demee xaaj ko ca digg ba yóbbu ko fa ngeen di liggéeye ngeen jariñoo ko mu ni man dee waaru naa sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo ni ko lu la waar mu ni ko dama bëggoon a am wërsëg ba di ko defar di indi sëriñ bi ni ko yéen ñiy jëfandikoo ndabi ak ñi ko defar andi fi yéen a yem képp bu ñu ko defaroon andi fi te kenn jëfandikoowu ko day yàqu te luy yàqu amul yool yéen leen defaral seen jëf ba ñu amub yool te jëf ka ko defar mook boroom jëf ja ñoo yemub yool wér na lii dañuy xamal ni sunu boroom moo baax te bërile jëlul yitam kenn di ñaane kenn ba tey waxoon na ca masalikul jinaan ñett ñoo xam ni bu ëllëgee sunu boroom subhanahu wa taala dana leen tàbbal àjjana boroom kër gi wax ñu joxe ñam wi ki ko doon joxeel ki ko doon defar yal na nu yàlla saxal ci defar aw ñam di ko joxe mel na ni bokk na ci li gën a mën a musle ci sawara mi mu ñëwee ci alxuraan ak hadis yi ma salakakum fi saqar qaalu lam nakku min almusallin wa lam nakku nut'imu almiskin ba wax ji àgg ak wa yut'amuuna ta'aama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا خمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا wa daaniyatan alayhim dilaaluha wa zullilat xutuufaha tadlila wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaar lahu mas naa wax ci bisub gaawu weeru safar ni weer wi fukki fan yaag juróom ñett dib gaawu ci la tàmbali woon liggéey bi sunu boroom may na ma ci liggéey bi loo xam ni sant ko war na yéen war ngeen a sant ci bis bi te xam ni mooy seen bis bo aksé képp koo xam ni man ngaa defar aw ñam andi ko fi na nga ko def ku amul loo defar andi te am loo defar yaag seg njaboot na nga ko def ku ko ci amul na nga fekk ñu defar aw ñam nga jëfandiko ca ba suur wér na lool mel na ni li may dégg ci waxam muy tudd suur bariwul tey nag tudd na jëfandiko ba suur kon ku ko man bisu màggal del jëfandiko ba suur joxe loo man ni mu waxe daa mel ni joxe aw ñam la jiital ci sant gi su ko defee mooy tax nu mën a jàng alxuraan ak ay xasiidaam mel na ni bayit wii mu wax ci xasiida gi mu tënkee ina makkanaa lahoo boole na ñett yépp bi xayri munzali mooy alxuraan wa xayrihi mooy xasida yi na waytu zikrahoo bi xayri munzali wa xayrihi mahal xiraa wa nusuli mahal xiraa mooy ñami wa nusuli ah mooy naan yi wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci fanweer bi ak ñaar sëriñ Touba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee guddi gàmmu ak guddi kori li tàmbulee ci kërug njaareem gii ak jàkka ja lu fi waaye fas ci suuf si am ko ñaari guddi yooyu suuf si dañu koy yéegal ci suufus tuuba siiw na Serigne Touba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee dénk naa leen sama xasida yi ak sama doom yi ak sama jumaa ja ca Tuubaa sikkuwut ni sama xasida yi ñoo gën ci yéen sama doom yi ndax ñoom dañuy bëgg ak a te seen jamonoy bëgg ak seen jamonoy mer neexut a xàmmee sama xasida yi nag duñu bëgg duñu mer te lu ci waay sàkku am ko ci xanaa masalikul janaan ba ma ko taalifee yàgg na lool ñu ni ko waaw mu ni lu ci waay sàkku am ko siiw na am na nettali yoo xam ni sëriñ bi xamal nanu ni xaside yi ñoo ko gën a gaaw moom ci boppam ci ak defar yal na nu yàlla dimbali ci ak taalibe gu rafet te sax faw ci barkeem wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na samay wax togg ku xiif la ku xiif bu la toggalee da ngay gaawtu lekk ko mbaa mu lekk ko bala maa digle dara def naa ko ba te su ma diglee ba noppi jug defi ko lu may tere masuma caa jaar te duma ca jaar mukk wér na yal na nu sax ci ay ndigalam ndax moom jariñu na ba noppi waaye daa bëgg nu jariñu wa in tutiuhu tahtadu wallahu aalam kañuy wax boroom ndar mas naa yónnee ci Sëriñ Tuubaa xaadalawo laaw maxtaar lowoo ni dana ñëw njareem sëriñ bi wax ñu fëgg barab boobee te mooy defaraat ko setal ko ba ñuy defar barab ba itam sëriñ bi yónnee na aw nag wax nañu leen ko añale te mooy mu doon seenub añ am na ca bis booba ñu dikk ci sëriñ Tuubaa lahu la maxtaar lawoo di ko boole di wax gone yu leen tooñ sëriñ bi ni leen tuub leen loolu ngeen wax man yoruma ko yàqu waaye kër gii ma nekk rëdd ko ku fi dikk ngir man la nga bëggoon lépp am nga ko ku fi ñëw ngir sa bakkan it suuf si jommante naag nga di fi jóge di dem safaan ba wér na lool sëriñ bi dañuy xamal ni balaa kenn mën a jëm ci moom day texe ba noppi lu ko mooy du ko man li gayri nan taxa bil muntaqa kullu di shaqa wa yanxoo bihi naxwi saidun wa doo tuqa nettali wi bayd wi tax na ma wax ni wér na lool ki doon nettali itam nee na ca gone yooyee la bokkoon wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalawoo nee na julli juróom ku ko dul def jotewuñ dara wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalawoo nee na bi may woo mbooloo mi fekkewu leen ko waaye danaa leen wax la ma leen doon doye ñii dugg ci sama biir kenn amatul seen soxla ku dul man mii yàlla subhanahu wa taala wàccoo naa ak yéen baber leen bés boobee ñuy woote bu dikkee da ngeen di beru ci sama jiba lii ngeen di def na ngeen ci góor da dangeen toog a toog ba ku defutoon lii ngeen di def dana ni siiwa mel ni yéen bu korogee ab yël bu dana feeñ ku mu fekkul nga dëgër da rot wér na lool sëriñ bi li muy xamle mooy ku àndak moom mucc na waaye dees na xool bu wér ndax ànd gi wér na wala déet bu ñu koy seet dana bari ñoo xam ni du doon lu wér ci ñu ci moom loolu mooy li mu bëgg a wax bu amee genn wàññi ci waxin wi yal na ma ko baal ndax mag ñi nettali seeni làmmiñ day faral di lëndam wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaada lahu nee na bu ñu dekkee jëm ca taxawaay ba warukaay wu waay mën a yor lu mu gaaw gaaw lu mu am doole doole dana dox ak moom ba àgg fi bërëb mu taxaw ni ko fii mënuma koo weesu boroom ndigal lee koy jàll rek ci kàttanam ba mu des ak taalibe ak taalibe ku ko war penc ma rek la lay cëppeel sëriñ bi dañuy xamal ni yowmal xiyaam lu doy waar la lool te ëpp waar lool moo tax nu war koy waajal la gën mooy ànd ku yàlla rus subhanahu boo ko defee yàlla dalay atte ci moom lu mel nii danu koy gis lu bari ci àdduna ji ñu nekk wallahu alam am na bis sëriñ tuuba xaadalawallaahu maxtaar lawoo di takkaloo sëriñ muxtaar binta radiallahu taala anhu am néeg ñu nekk ca bajant bi so ca fajar ñu xëy si sëriñ tuuba xaadalawoo laaw maxtaarlawoo ni leen fu ngeen fi dégg ceebu mi ñu naa ko bërëb sàngam ak bërëb sàngam sëriñ bi ni leen yéen seen ceebu mi ngeen nekk laa leen bëgg a xamal seen ceebu mii ngeen nekk bokkut ak ceebu yooyu yi ceebu mi ngeen nekk tooba gi xëy na li ngeen suul la bëgg a wax tooba gi bu saxee xeetu gàncax yi yépp lay génnaale te yéppay màgg te dara du leen dog wér na dañuy xamal ni liggéeyal ko mooy barke bi nga xam ni day sax dàkk noor ak nawet adduna ak alaxira waaye nu xam ni Sëriñ Tuubaa xaadalawul maxtaar loxo lu sell lañu war a jëme ci moom loolu dana tax nuy sellal suñuy pas-pas ak suñuy jëf إنما يتقبل الله من المتقين والله تعالى هو الأعلم سرين توبا خاد له الله مختار له مسنا و فاتي فاتجا رضي الله تعالى عنه تبير كرغي بسوب تبسك نينا نيك بسرين توبا نيك خاد له الله مختار له فيك نفا نيامو بري متوك بامو ياغ مونيكو فاتيما نيك ما فوفو دادي تجنيك بدم ba ñu julli takkusaan ba noppi mu dikk ni ko ana kii kañ nga ñëw fii mu ne ko yaa fi bàyyi woon waxtu sàngam sëriñ bi ni ko wax nga dëgg di jox ma aset bee aset mooy bool bu ndaw mu jox ko ko sëriñ bi jël ab tibb ci suusal bu fa nekk ñetti yoon def ci këll bi fab kook tàng ci am ñeex mu fa nekk ñetti yoon def ca ni ko jariñoon lii fatimba mbaa bokkoo ci ñuy sonal nit ñi ci ab laaj li ñu def xaadab laaj moo yées ci ab laaj kii sama taalube baaya kii sama taalube lépp ji naa ko mooy suul naa ko ci géej gi ba mu sax gàncax te taalube yeeg sët yi rekk a koy jariñoo nee na keroog wax naa moom lu bari wér na am na weneen waxtaan wu nuru wi xëy na loolee mu ca wax mooy lu bari ñëw na ci téere bii lii sëriñ bi di def dañuy xamal ni ab yar mooy lépp soxna si daa mel ni sëriñ bi da doon nattu waaye mel na ni itam gis nañu ci jëfin wi loo xam ni danañu yar nun taalibe yi yal nañu yàlla dimbale ci ànd ak sëriñ bi te may nu ab yar musal nu ci laaj ak sonal benn mbokkum taalibe wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuuba ci ñeen fukkeel bi sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na lu ma waxateeg yéen ku ko ci xamul na ko laaj mahmudan mii ndax boroomuk fàggu la wér lu mel nii waxoon na ko ci sëriñ Omar Mbàkke radiallahu taala anhuma li koy waral ñoom dañuy yàgg ak sëriñ bi yàgg a fekke ay waxam yàgg a dégg ay misaalam ba daanaka buy tàmbali ñu xam li muy bëgg a wax lu mel noonu nii daana waral ñu bari di bëgg a ànd ak ñu mel nii ci sëriñ bi wallahu أعلم